Euh, waa kay jërëjëf euh, PDG Baraka Bio Abdourahmane Kebe mu mel la ñu dugaat ci beneen buntu euh, ñu ñëw ci secret bi nga xam ni tuddoon nañ ko sax suñu biir jotaay léegi rek muy nebedaay nebedaay foofu ñu waxtaan tuuti waxtaan ci itam yaatal ko muy secret bu doy waar boo xamante ni askan ñu si bari sax dañ koy jëfandikoo waaye njariñ bi ba léegi desee nañu xam lu mu doon. waaw Mouhamadou Lamine ñu ngi ziar waa nebedaay moom lañuy ñuy wax sap sap maanaam sap sap yaakaar naa yàq nga koo lekk ci cere. dafa di garab gàncax goo xamante ni borom xam-xam yépp maase nangu ni nebedaay mën na faj trois cent treize jàngoro wala lépp trois cent jàngoro ci mu nit loolu moom ñëpp commencé nangu ndax nebedaay mu tàmbalee ci xob ya dem ci tóortóor ya dem ci doom ya dem ci xas ba dem ci reeneen lu ci ne dafa am njariñ maanaam moom amul lu ñuy sànni lépp baax waaw nebedaay Euh, nekk loo xamante ni dafa baax lool lool lool ci dund doomu aadama mag ñi dañ ko daan jëfandikoo lu bari bu ñu ko daan toggee cere mooy xob yi. mooy mbuumu saab-saab. marché daanaka boo dem am na fa. moom la ñuy wax cere mbuum. waaw moom lañ am na ñu koy wax cere mbuum comme bu ñuy toggee cere mbuum xobu nebedaay yi ñu ci bëri moom lañu koy kiiwee. waaw gis nga sëñ bi nebedaay dafay reel dafay leeral ay bët kooku tóortóor yi dara mënu ko ci boo jëlee benn tóortóoru nebedaay benn kese. nga boxam ko ci kaasu ndox bàyyi ko ci lu mat ay dix minutes nga jël ko di ko sëlmoo di ko raxasay ba daf koy leeral nañ euh, doomu nebe daay dara mënu ko ci wàccee suukar mais bu nit ko xamul ni mu koy jëfandikoo mën na wàcc ba ëpp waaw bu dee nebe daay xas mi dafa baax ci rhumatisme maanaam ko amee ay jafe-jafe yax nebedaay ba tey dafa baax ci ko amee jafe-jafe sidit da koy faj tension muy hypotension di ak hypertension yëpp daf koy daf koy faj baax na ci kuy anémie maanaam ku koo xamante ni dafa day faral di ñàkk deret ak yooyu ba ci hépatite hépatite B bi ñuy wax ni nebedaay baax na ci lool lool lool baax na ci ay infection ba pare anti inflammatoire la waaw dafa nekk loo xam ne dafa bëri dafa bëri vitamine trop trop trop kyste nebedaay baax na ci fibrome nebedaay baax na ci ak tamit euh, wàllu articulation maanaam ku amee ay jafe-jafe yax mhm. nebedaay baax na ci nebedaay man dama ciy faj asma mhm. asma dama koy faj ci nebedaay te te faj bi du yàgg te te lu gaaw lay doon waa dafa doon daal loo xamante ni daal moom euh, maanaam mën na yembal dund doomu aadama daal waaw macha allah mbokk yi dégg ngeen nebedaay eh, ñu jël ci rek eh, ab bunt boo xamante ni rek eh, PDG leeral na ci Abdourahmane Kébé tabarkàll mu nekk loo xam ne lu ama am am solo la ñu ñëw nag ci li nga xamante ni ñu bëri dañ koy xaar wala sax ñu bëri bëgg nañ ko itam di ko xam muy secret bi maye alal secret buy maye alal. ñu bëri wax nañ ni am na bunt yu baree baree bare boo xam ne war nañ ci mën a jaar euh, tey yow lan nga ñuy indil ci wàllu woowee nga xam ni nit ñi euh, ñoo ngi koy lam-laamee wala bëgg nañ ko sax toog di la bàyyi xel nga ciy wax ah secret alal waa loolu am na loolu am la ndax comme li may faral di wax rek arxuraan moom ba ba ñu ko yàlla wàccee la wa ba ñu ko yàlla wàccilee la wàccoog ñun mm-hmm. lépp a ci ne mm, mag ñi dañuy faral di wax ne secret bu mën a may alal ju bari lool lool lool lool lool mu ngi ci bàqara te lu ma gëm la suratu bàqara euh, mooy surat numéro 2 ndax ci kaamil bi nu mu ñëwee faatee lañ lañ naan surat numéro 1 bàqara lañ naan surat numéro 2 bàqara di aay di saar bu am solo aay yu bari bari bari yu gën a am solo daanaka yi ñu jëfandikoo ca la ne booy xool bàqara mooy nag bàqara mooy nag mm-hmm. nag mooy kun mm. ndax nag nuñ koy bindee nuun ak keef la kun mm. keef ak nuun la mm. donc nuun cinquante la keef vingt la muy soixante dix soixante dix mooy kun yaakaar naa keroog ñu ngi ci doon def waxtaan waaw donc baqara daal am na nu ko mag ñi di liggéeyee di ko booleeg nag moom wax dëgg yàlla moom day may alal de waaw lu bari lool sax am na tamit euh, secret boo xam ne mag ñi dañ ko ciy faral di def maanaam day am nag euh, këll mbonaatu géej waaw moom dañ koy sangoo su boobaa mm-hmm. amaale tàggu kàkkatar <laughs> lu jafe waaw ndax kàkkatar maanaam moom it dafa bari loolu ay secret sut si wàllu xaalis am na ñu ci def ay tabdil ak yooyu am na ñu def yenn kimiyaaw su bari am na ci ba noppi kàkkatar nu muy tàggee tàgg bi day mel na kalpe boo xoolee tàggu kàkkatar mooy caméléon tàggam day mel ni calpe eh, lu mel ni coton. coton lay tàggee ndax xamoo boo doomu paftan am na yeneen ci biir yu mel ni ay yu mel ni wëteen waaw yooyu da koy utiliser tàggam lu bari la moo tax boo gisee tàgg bu rafet lay tàgg tàgg day am ay poche mel ni calpe moo tax moo tax kàkkatar moom mag ñi calpe lañ koy woowee. am na ñu ciy def ay soppi xaalis ak yu bari dañ ñu bëri dañ ko ciy def waaw waaye daal moom daal mm, bari na nag bari na yuy secret yuy maye alal ci alxuraan bari na PDG baa yow dooy soppi xaalis parce que boo xeloo yow da ngay xam lépp tokki moo tax ñu la laaj baa doo soppi xaalis yow. ba tey déggoo ma ni la dama koy def man dama dama lay wax rek toujours ne la dégg naa mag ñi <laughs> ko wax <laughs> waaw waxuma la dama koy def soppi ma xaalis soppi ma xaalis <laughs> waaw. jërëjëf euh, PDG Abdourahmane Kébé macha allah mbokk yi mu nekk loo xam ne lu am am solo la euh, jotaayam tam askan wi tam euh, wax fa dëgg ko bàyyi xel ci jamono ju nekk saa su ne di ko jaajëfalaat bu baax a baax ci disponibilité bi ñu ñëw la maman. Euh, moom laay wax ak yow tey mu mel ni euh, ñu bari buñ ko waxee tam aajo ñu xam ci wàllu soxna yi lay wax rawata damay boole ñaari question yoo xam ne ak moom sax boole ko muy la maman euh, hémorroïde ak siti ñu boole ndoo loolu tey mu mel ni soxna soo xam tey dafa ñëwoon ci wàll boobu da ñu leeral la maman ci li muy dox waaye hémorroïde ak siti nekk na loo xamante ni mënuñu def jotaay ba jug te duñ ci wax. waaw la maman keroog ñu ngi si doon def waxtaan sax moom jàng moom garab gu baax la jigéen ju am jafe-jafe am taq ndeer ba ci moom it nebedaay mu ngi ci am nañ ko composé euh, di garab goo xamante ni amul benn jeexatal bu négatif maanaam amul effet indésirable indésirable bu muy def ci yaramu nit jigéen waaw dafay dimbali jigéen lool lool lool lool ci jafe-jafe jun am jafe-jafe am doom ci fànn yu bari nag ci fànn yu bari mais lu ne rek saa su ne bu ñu xamee cause bi danañ xam ndax la maman bi kese lañ koy jox wala ndax dana am leneen luñ koy boole ndax kii bari na bu dee hémorroïde ak cystite moom kooku moom moom toujours rek wax ci moom du du jeex te it du lu war a jeex ndax dafa bari si jamono ji ndax bari na nit lu muy jàmbat man bari nit lu muy jàmbat des fois nga gis kii naan la sama yaxi day metteeg sama bët dee lëndëm ak nanga mais boo ko laajee gis ni du dem du chaque jour day constipé lu lu bari rek da ngay daal di xam ni hémorroïde euh, bi mooy li ko causé. ñaareel hémorroïde daal moom mm, ku ko amut ku ku ku ku yàlla dimbali ba amoo ko mm, feebar yu bari mën nga cee mucc mais ku yàlla nattu ba nga am ko maam ku yàlla dogal nga am ko moom li ngay jàmbat seeram dana bari lool mais lu ci ne rek moom mënta comme li may faral di wax mënta garaaw garaaw ba duñ ko mën a faj ndax euh, yàlla wàccal nañu gàncax yoo xamante ni moom mën nañu faj jàngoro ju ne waaw muy la am solo PDG mel ni waxtu bi daanaka dab nañu waaye tam du ñu tëj te ni ma koy waxee euh, daj dëpp gi moom askan wi tam di ko bàyyiwaat xel muy kun fa yekku ndax saa su ne itam ni ma koy ñuy waxee ci Emory City moom it wax ba jug te waxuñu ko tam euh, mu nekk loo xam ne nga fonk la waaye tamit li nga nangoo sonn la ba tax na askan wi itam euh, toog toog def jotaay ba jug te waxuñu ci moom erreur la ñu mel rek dañ ciy dellu si tuuti rek bamtuwaat ko saa wax bu am solo muy wax waxaat du bari wax waaye am na ñoo xam ne tey gii lañ koy soog a dégg durant nga tàmbali di ko wax. waaw kun fayekoon daal li ma la koy misaalee maanaam boo doon jël ñuy jëfandikoo wàllu laslaar aslaar ñi koy def ñi xam mbootu kun ñoo ci ñoo ñoo ci mën maam loolu laa laa lay expliqué ndax kun nekkal fa yekkoon kon mu nekk euh, maanaam fi ñu mën a jaar borom bi la ba am nu ñuy ba am li nga bëgg mm-hmm. ndax tey boo bëggoon gis président yaakaar naa boo xaritoon ak Marième Faye Sall wala nga xam benn ki ka jege bu la neexee mën nga añoon año añandoog moom boo ko teg ki bind lettre demande audience kooku mën nañ ko sax bañ a tontu noonu tam la mbirum maanaam faj ak ñaan deme mais daal kun fayekoon su ma la si joxee misaal boo xoolee mu ngi jàpp mu ngi jàpp cent 236 mooy kun fayekoon boo ko arrêté euh, boo jëlee allahu kun fayekoon day jàpp cent 302 ndax allahu 66 kun 70 fayekoon yaakaar naa 166 mu nekk 310 euh, daf ci am secret boo xam ne ci allahu kun fayekoon maanaam sañaan du am intermédiaire direct suñu borom lay dem te da koy valider waaw loolu la euh, boo jëlee kun fayekoon 236 la ba tey boo ko multiplier par 19 da lay jox 4484 euh, mag ñi dañ koy wax dash mash dash mash yaakaar naa borom xam-xam yu bëri xam nañ ko. léegi pourquoi 19 bi fu mu jugee ndax 236 mooy ku ñu fayekoon donc 19 mooy lettre basmala 19 lettres la bismillahi rahmaani rahim moom poids mystique am ñii lañ naan la 787 mooy safasum ñii na la 1027 ñii na la 1026 mais li waral différence boobu di am ndax booy adat ci xilmu xilmul xadat maanaam xam-xamu la connaissance des chiffres comme mm, ci wàllu ak des lettres maanaam calculer lettres am na yi ngay dindi mu valable am na tam yoo xam boo ko ci bàyyi tam tere dana valable ndax booy xool Serigne Touba yàlla na yàlla yokk leeram am na fu muy waxee ne yaakaar naa basmala euh, bismillahi rahmaani 21 xuruf la ndax booy xool boo jëlee bismi am na alif gu njëkk ñëw avant baa gi donc 19 plus lettre boobu di nekk 20 boo jëlee rahmaan am na laam gu aju ci kaw mu nekk 21 donc Serigne Touba moom noonu la ko teqantale donc 19 yi valable na. kii valable na mais mbootu gun fekkoon boobu ma lay wax des desma tasmas boobu dafay lakk dañ naan day lakk jëf day lakk aajo comme nu mboob comme nu safara di lakkee mboob waaw donc ci loolu la ñu jël boole kook euh, gàncax gu ñu yàlla dénk euh, moo tax mu doon garabu kun fekkoon boobu dañu fajal lu bari daal. waaw noonu eh, eh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi yëg boobu ba léegi di toj secret bi kon mu ngi gën di am solo eh, looy tàggatoo waxtu bi nag dab nañu xaw nañu xaabaabal tuuti looy tàggatoo PDG. waaw xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax lu dëng rek ñun la lu jub yàlla la moom miy jubal di gën a feddalu suñu kóllëre ak mbokk yi rek di leen ñaanal jàmm ak xéwal mm, di ko ñaanal sa waa équipe di ko ñaanal tam suñu waa équipe ndax. Euh, baraka bio benn équipe la boo xamante ni yàlla ay nit la fa yàlla boole ñoo xamante ni ñoo bokk ci li ñuy dox ñu ne fa ngir dimbali jàmm yàlla yi waaw ñu ngi leen di char baax di leen ñaanal jàmm ak xewal jërëjëf euh, PDG Abdourahmane euh, Kébé mbokk PDG Baraka Bio di ko nuyu mboolem équipe tamit ñi nekk ci euh, Baraka Bio bi yëpp ñu ngi leen di ziar tam di leen jaajëfalaat bu baax a baax di xam ne li cant ak ngërëm tam ñeel na di ñaan laat bu baax baax Abdourahmane Kébé PDG di ñaan allahu bur subhanahu wa taala guddal fanam doole ko defal tawfiix tey si rek nag yaax defal ko saxaab daare ni ci barke Serigne Touba Khadim Rasoul mu yàgg loolu di jëflanteeg askan wi 77 la 454 17 90 wala beneen numéro bi 76 535 81 36 di ngeen allah buur bi subhanahu wa taala gën koo sàmm defal ko tawféex ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni saa su ko équipe euh, jàmm ji info soxla ak mboolem internautes yi da gis itam mu bàyyi lépp malgré coono beeg liggéey beeg ak patient yi waaye itam mu yombal ñu li ni mel di ko santaat bu baax baax di mboolem équipe technique bu jàmm ji info éclairage caméra Seydina Omar ci wàllu présentation bi seen jotaay